Bamba Gueye l'entraîneur de Matam bopp bi ñu ngay tegantey loxo tegante nañuy loxo tegante nañuy loxo attention ndeysaan ca beneen wàll ga Fatick la ak Matam foofu Malick Goma Faye arbitre attention Kédougou Louga ceinture rouge Kédougou attention waa Kédougou xale Kédougou jël na tànk ba jël na tànk ba mu ngay doog moom mu kal ah daan na ko daan na ko Babacar Diallo ndeysaan déggal mbayang lum la muy woy la ilaha illallah eh, Kédougou góob Louga ñoo doon bëre léegi ndeysaan fecci wàll ga général Malika ndeysaan A attention attention eh, eh, xale bi xale bu Kédougou bi Kédougou oh ndeysaan ceinture victoire dégg ci Kaolack 4 Matam 1 doy na score ba Kaolack Tamba yéen a ngi xaar Kaolack c'est du rouge équipe bu Dakar a ngi noonu moo ñu feete ndeyjoor Bébé Diène a noonu daw ki ñu feete càmmoñ mooy équipe bu Sédhiou war a jongante léegi ñoo yore ceinture bleue Dakar rouge Ibrahima ay leen indi mooy seen entraîneur Dakar rouge Sédhiou ceinture bleue arbitre bi sifflé na xelel Dakar bi Dakar ak Dakar moo nu woon ginnaaw Sédhiou en face ngay gasu xelel Sédhiou bi ceinture bleue 66 kilos jàppante nu ci loxo jàppante nanu attention attention Khelel Sédiou bi ceinture bleue bëgg nga jeexal combat bi mais Dakar xale bi moo ngi ca xabal ba la ilaha illallah ah ah xale bi lu def nii waay laa ilaha ay waay roof na ko caxabal daan ko Dakar mook Dakar Rouge Sédhiou ceinture bleue Alpha Diop Sédhiou Bébé Diène Dakar Alpha Diop Bébé Diène arbitre laaj na leen ndax par arbitre sifflé na fii ci stade Caroline Faye bu Mbour vingtième édition de l'État 18 h ci sama montre Bébé Diène raxasu na suuf si ko jàpp na ci kaw bopp ba mu bañ Alpha Diop Alpha Diop jàpp na njaabi golo daw na songi ko Débé Diop jeen bañ na Dakar ak Sédhiou Alpha Diop Bébé Diène ey waay mbayang lum waay ey waay amin waay mbayang lum yaa xadi yaa sam rooga yurmong la ko yàlla yërëm te yéexe ñu xaaru ko àjjana yaa xadi ndeysaan Fatou Gueye ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñi fa jiitu attention Bébé Diène moom Alpha Diop Bébé Diène Dakar Alpha Diop Sédhiou ceinture bleue Alpha Diop boo génnee sax koy avertir la arbitre avertir na da avertir ndeysaan eh Mbayang Loum ndeysaan arbitre bi woon na Alpha Diop nee na ko dugal ci biir xelel Sédhiou bi avertir nañ ko benn avertissement yàgg maar attention Bébé Diène daw na song ah Bébé Diène flexionné na jàpp ci tànk ba xale bañ Bébé koy puus bu gënaatee dañ koy avertir at arbitre atewaat na eh ñaari avertissement pour Sédhiou at bi sifle wat ah xale bi lu muy def ay waay eh, lamb bari affaire lamb daal la bari affaire bo dam na songi ko Bébé Diène jàpp na tànk ba da koy daj ah wala da ko bëgg a jaxabal ah, daan na ko Bébé Diène daan na Alpha Diop kii waree Diourbel kii waree Kaolack Boy Faye Diourbel Caaka Faye Kaolack Boy Faye ceinture bleu moo nekk côté ndeyjoor Caaka Faye ceinture rouge nekk suñu côté càmmoñ ñu ngi lewoto attention Boy Faye dem na jëli tànk ba Caaka da daa doon fecc Caaka Faye daa jooga so ba mu neex ko Faye biram pena waagan xool ko xoolal Leewtoo ba laa ilaha illallah eh ndekete mbër dana bëri di bàyyi waaye xel caaka fay Kaolack booy fay Diourbel attention booy fay ñoom ñaar kenn ku ne pied gos nga jiital biram ñaar ñi xamante nañ daf mel ne tey représentation bi mooy différé rek jël na tànk ndax dina ko ci bàyyi ah ah Boy Faye Caaka Faye dafa laa ilaha illallah ah arbitre bi lu mu ay juge am ah! ah Boy Faye daan na Thiaka waaw daan na ko waaw waaw ils sont très sportifs. amul jàpp ngemb de. dëggantaan. kon xam nga lutte lutte africaine la. waaw mais nag man lan laa xasa comprendre lul mooy ci ci drapeau rouge ak bleu yi. loolu nu mu demee ceinture yi mbër boo ci gis équipe bi bu ne day jël benn ceinture. waaw ah. soit blanc xaw ma soit bleu boo jëlee bleu comme bleu ak rouge moo am ñaari drapeau arbitre bu ne da nga yor ñaari drapeau lool pour juger la pour mu gën a yomb bu dee rouge daal nga gis ñu yëkkati rouge wàcce bleu bi ah. boo gestoo rek gis ko waxtaan lay doon dégg nga ci Kaolack quatre Diourbel benn daanaa la ne sax ñuy seetaan. toj na chaise ba. gis nga arbitre bi nee na chaise bi du toj fay. waaw chaise bi moom toj fay la waaye CNG ñoom ñooy xool nu ñuy def ñoom seen bopp. ndax ñu fay la de. ñoo di chaise ñoo ko damm. ñoo koy di ñoo ko damm. laay laay daan nañ ko. ndax validé nañ comme déet. est-ce que mu génn. eh. ah arbitre da ko avertir da ko avertir yàgg maar ko avertir Thiès lak Saint-Louis songo wat nanu Saint-Louis rouge Thiès bleu ñaari xale yi ñemente nanu ah jàppat na jël na tànk ba ndax dana ci rëcc na waaye jëlaat nañ ca tànk daan na ko laa ilaha illallah ah na bëre ndeysaan eh déggal ma mbay lum eh boog wasanga maar fu dox njom ne januar boog wasanga maar fu dox ne januar lo ma si lo ga hoy de

Amano, Brasil, nunca foi kontaan carrément parce que c'est un long travail boo xam ne dañ koo yàgg préparé et puis vraiment le CRG a mis les moyens sur un regroupement bu travail bu fii tey lii rek la ñu mënoon demee quoi vraiment féliciter nos nos combattants nos et di du yomb quoi du yomb incha allah. Ousmane Sané loolu daal incha allah dañuy jël dañuy jël làmb ji. làmb ji fii lay des dañuy jël la ji dañuy jël làmb ji. mbokki Leewtoo yéen a ko gisandoo Dakar dem na final waaye tam Thiès dem na final Libidor sauvé na waaye équipe bi la dimanche ñu def seen final suba am na compétition bi dañuy compétir ba mu desaat final ñu doog a dem dimanche def final yi Dakar en final dara du yomb fii ci stade fay Faye bu Mbour vingtième édition drapeau chef de l'État mbokk yi jërë ngeen jëf